mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey quinze aaya quinze ci suuratu yuusuf fi suñu borom di waxee ni falamma zahabu bi inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi kon ñu ngi santar suñu borom subhanahu wa taala xam naa dana jéggalu caamini bu baax ndax dafa mel ne démb dama ne woon tey la fukki fan waaye nag alhamdulilah tey moom mooy fukki fan shahru ramadan waaw ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala ci loolu kon ñu ngi nekk ci saar bu màgge bi di sóoratu yuusuf suñu borom nañu mooy ahsanal qasas la gën a wér sell gën a wér gën a am njëriñ ci qissa booy dégg mooy qissa suuratu yusuf yàlla nattoo na ma bis ma dem université Dakar ci sunu benn jarbaat bu doon soutenir benn thèse ci Joseph de Congrès yusufa tubaab yi mënuñu wax Joseph Joseph de Congrès wëndëng la wu jóge woon France ñëw tasaaroo sunu dëkk yi africain yi tasaare fi culture tubaab ndeysaan suñ jarbaat boobu bindaloo nañ ko ci lu jege cinq cent pages pour thèse doctorat loolee mu war a nekk référence pour jeunesse yi ñëw ci université mbokk loolu mooy musiba bi nga xamee ne nii njàngum tubaab mi indil nañu ko amma ki nga xam ne mooy yuusuf yonent yàlla ba doomi yanquuba ja lan la ndaw ñi xam ci moom mbokk da ngay gis mën ngaa wax dara ña ca xam ci moom ak si néew dara mooy la ñuy wax ci film yooyu maadaama xissa bi daf cee am lu jëm ci wàllu njaalo tax na ba film yu dul jeex tourné nañ ko ci ngiree man caa profitoo man caa yàq la nga xam ne nii mooy ndaw ñi ci musiba yooyu ñuy def fan yi paase rek yéen ñiy déglu réseau yi am na ku ñuy tuddee kilifa diine ci ñuy wax ci wàllu lii di viol yi di am ak yu demee noonu dem na ba junj ca la nga xam ne mooy xissa Yuusuf ca kooku ci yàqkat yi diine yi la bokk almuhim mbokk xissa la boo xam ne li ci nekk ci bind kenn xamul na mu toll am na yuñ ca jotoon a jël insha allah ñu ñaan li nga xam ne moo ci tegee ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وأجمعوا فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa ta'ala mu ne ñii di frère yusufa ya day falamma zahabu bi bañ demee yóbbu yusufa wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb ñu daldi dëppoo te def ko ca lëndëmi teen ba muy fa fàddu ca teen ba wa awxaynaa ilayhi ñun yàlla noonu lañ wax yoo ci moom la tunabbi anna bi amrihim haza wa hum la yashurun yusufa bis dana mas a ñëw nga leen di fàttali di leen xabaare seen jëf jii ñuy def tey te ñoom duñu mën a doon di yëg loolu wa jaa'u abaahum ishaa ishaa'an yabkuun noonu lañ dikkale seen baay ca ngoon nekk di jooy qaalu yaa abaana inna zahabna nastabiq ay baay ñun de dañoo demoon di course di rawante wa tarakna yusufa inda mataa'ina ñu bàyyi yusufa ca suñ bagage ya fa akalahu dhi'b mu daal di ñëw lekk ko till ga wa ma anta bi mu'minin lana xam nañ ne nag yow doo nekk mukk di ñuy gëm walaw kunna sadiqin donte ne nekk nañ ñoo xam nañu dëgg lañu wa jaa'u ala qamisihi bi damin kadhib noonu lañu indee ca xamisam ba mooy turkeem ba ci deret yoo xam ne dereti fen la qaala bal sawwalat lakum anfusukum amra yanquba na leen déedéet taaral na ñeel leen seen bakkan yi mbir fa sabarun jamil waaye da ngeen ma fekk ma muñ muñ gu rafet wallahu almustaanu ala ma tasifuun yàlla nag moom la ñuy dimbali ko ca la nga xam ne yéen a ngi koy melal mi ngi noonu mbokk ci suñu deuxième épisode ci film bi gën a wér bi gën a neex bi ëpp njëriñ ci lu doomu aadama yi dégg démb dajawoon nañu ca kër yankuub doom yi façon wóor lu nekk teg nañ ko seen loxo baay yusufa inna lahu la nasixuun inna lahu la xaafizuun mi ngi noonu dañ ko lay biir dañ ko wattu bàyyi ko ñu sàmm ko mu fo ilaaxiri yankuba dem na ba ñàkk pexe bàyyi leen ñu ànd ak yusuf naka ñu ànd ak yusufa dem ca àll ba daa di koy jël ca yóbbu ca teen ba ñu waxoon jubbu mooy teen boo xam ne amul ay piye yu ko wër bañ demee ñu daal di dëppoo ci sànni ko ca teen ba ñu daal di jël yusufa sànni ko ci teen bi biñ koy sànni suñu borom na ko gis nga yusufa muñal bis dina ñëw nga taxaw ak sa frère yi di leen fàttali ni jëf ju ñaaw ji ngeen ma defoon keroog ba ngeen may sànni ci teen bi te bu boobaa ñoom duñu xam ne yow yaay yuusufa mañu sànni woon ci teen ba loolee gis nañu suñu borom dalal ci xelam ndax wax naa la démb ni lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne yuusufa mi ngi amoon à peine ay dix ans douze ans kon suñu borom dalal ne xelam ci loolu gaa yi nag ñoom sànni nañ yusufa pour moom mbiram jeex na léegi nag bu ñu demee lu ñuy lay bàyyi lu ñuy lay bàyyi ñu daal di dem jël yére yu futti summi yére yusufa avant ñu koy sànni daal di dem jël benn bëy bu ndaw rey ko jël deret bi sotti ci yére yusuf bi ba mu toy xëpp léegi nag ñu daal di ñëw biñ ñëwee rek ak ci kër gi ñoom fukki ñépp ku nekk ku dàq yikkat sa morom ñu nekk yi di jooy di jooy di jooy bàyyi bi ne leen waaw lu xew loolee mbokk da ngay gis bokk na it ci ak ko xolom nekkul naafiq koo xam ne heure bu bëggee jooy jooy gis ngeen jigéen ñi ndakaaru da ngay gis ab dëj day am fat càmm nga jóge ba kaw lakk Fat Ndiaye jóge ba Thiès ñu nekk coofee waxtaan ak laay mi soog yëpp buñ demee ba jub dëj bi rek ku na sànni sa musóor commencé xalam ko jooy waaw loolu mbokk da ngay gis loolu la frère Youssouf ay defoon jooy jooy yi metti loolu xew ñu naa ñu ndey bàyyi Youssouf ñoo àndoon waaye dañoo dem ba ca tool ya ñu ne léegi nañ nañ course fi ñu àndee ñun ñëpp àndandoo dem di course avant ñuy dellu si fekk nañ ci léegi lekk ko loolu mbokk dañ ciy dégg ni alquran mi ngi saxal la nga xam ne muy course mbokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax julit bu dëgër moo gën julit bu nooy su ko defee yow ndawal julit xamal ne sport c'est recommandé ci l'islam sport bi gën a complet it xam ngeen ne moom mooy daw moo ëmb lépp naan da daw ak natation daanaka ñoo ëmb lépp loolu kon l'islam da koo saxal sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam it yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku mas na ànd ak armée islamique ñuy dem moom armée bi da daan féete gannaaw lu tax mooy sàmm xeet bi te sàmm day féete gannaaw ñoom yi sàmm léegi benn bis mun na dem leen gaa yi dem dem dem ba sori fekk mi ngi ànd ak yaay Aïcha yaay Aïcha booba mi ngi woyof mu ne ko Aïcha nañ daw kan mooy jëkk ci armée bi Aïcha nee na ñu daw ma raw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu teg ci ay at dem nag ba léegi jël naa poids armée bi dem mu ne Aïcha nañ daw xool kan mooy jëkk ci armée bi nee na ma daw daw waa yonent bi romb mu ne fif dégg nee na nag moom mer mu ne ma hey bii mooy fay bee yaa ngi dégg mbokk loolu kon kooku mooy yonent yàlla bi ñu doon jàngal ni nit la woon comme ñun won ñu ni tamit diina ji firiwul rek ne foo toll bokk say dal lemu ca jàkk ja wala gàddu sa lu mën a doon rey sa baat rey sa yaram comme ni ñu koy gisa ci nit yi ñu bëri tey ñu leen di tudd ay sëriñ bu ñu wax mel na ñuy onk fonk lum ci ay min taxaw seen waaw sëñ bi nee na sëñ bi nee na bokk loolu suñuy mbir rek la yonent yàlla bi dafa àndoon nag dëgëram daan jihaad fi sabilillah jàmbaar yi góor yi ali nabi talib nee na daan nañ dem ci jihaad mbir mi daana tàng ba ñun ñëpp ci gannaaw yonent bi la ñuy làqatu loolee kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu kër yanquuba yanquub kon doom yi ne ko ñun kat bàyyi fañ demoon di course avant ñuy dellu si fekk nañ ci liggéey rey rey na yusuf lekk ko ko ba mu jeex tàkk akalahu waxuñu sax ne da ko da ko da ko fàdd wala waaye dañ ne akalahu lekk na ko ba mu jeex tàkk xam nañ ne nag bàyyi tey luñ la mën a waxit doo ñu mën a gëm doonte ne ñu dëggu lañu luñ la mën a wax doo ko mën a gëm te moytul koy wax ak yow naan li may wax dëgg la boo ko dëgg jarul prouvé nit ku dëgg boo waxee dañ xam wax ne dëgg waaye képp koo dégg naan billaay walaay taalaay moytu gis ngeen kon léegi nag ñu indi xamisa bi jox yankoo ba na ko xamisa baa ngi nii till gaa ko lekk suñu borom mu ne dereti fen lañ ca def yankuba yëkkati xamis bi xool xamise bi tubaab bi danaan un crime n'est jamais parfait ñoom bi ñuy indi xamise bi dañoo fàtte xotti xamise bi yaa ngi dégg suuf ci deret rek bam sooy xëpp yi ñëw yankuba xool xool xool na leen cey seen till gi de expert till la ki mën a jël sama doom mu sol xamisaam mu lekk ko ba mu jeex ci xamisa bi fenn xuree ko mu ci seen te liggéey expert la de yaa ngi dégg waaye nag ah baax na fa sabarun jamil da ngeen ma fekk ba muñ muñ gu rafet lii nga xam ne programme ngeen ko melal ko wax ko ci yusufa maa ngi dimbali ko yàlla ci loolu te it mbokk lan mooy sabarun jamil muñ gu rafet mooy la yonent bi alayhi salatu wasalaam romboon ca armelia gis benn jigéen mu toog di jooy mu ñëw ne ko ay soxna si lii ngay def du lu yàlla gërëm mu ne ko waay jógal fii li ma dal dalaa dalul xamul ko yeneen ci yàlla bi bi muy demee am ku ñëw na ko waaw yeneen ci yàlla bi lu mu doon wax ak yow mu ne ko ah kii mooy yeneen ci yàlla bi tiit daw dem ci kër yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ayam yàlla xawma xawma la woon yeneen bi ne ko asabru inda sadmati l ula yàlla dafa gërëm muñ waaye lan mooy muñ mooy fi la natt bi dalee nga muñ waaye mbokk doomu aadama bi lu la mën a dal ni yàlla binde nature doomu aadama oto ba accidenté na sa baay dee na sa doom dee na sa soxna dee na lépp dee na balaa yàgg nga toog di waxtaan ak rey loolu mooy nature doomu aadama amma la yàlla gërëm mooy fi natt bi ne xës nga muñ muñ gu rafet yeneen ci bi alayhi salaam nee na yàlla bu yónnee malaaka yi dem leen jëlal ma sama doomu jaam bi nee na ñu ñëw jël ko suñu borom ne waaw bi ngeen jëlee doom ba lu mu wax ñu ne ko yàlla moom day xamidaka wastarjaa sant na la dellu na ci yow wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu borom ne waajalal leen ko ci àjjana kër gu ñuy tudde kërub cant mu dëkke fa moog doomam jooje loolu mbokk mooy ca ba muy metti suñu yaay Aïcha radiallahu anha ba ko yàlla tegee natt bi mu ko teg ba natt ba feebar loo ko naafiq yi yàq deram diñ ko njaaloo ba feebar boobu tax mu ne yeneen ci bàyyi salaam may ma ma dem sama kër bàyyi ba mu demee kër bàyyam bis ba yeneen ci bi ñëwee ñëw woo abubakar woo yaayam ñu toog mu ne ko Aïcha lii ñu lay wax ñaar ak moo mën a am bu dee ne yow yaa ko def da ngay nangu ne yaa ko def tuub dellu ci yàlla yàlla nangul la tuub soo ko deful ñu xam ne defuloo ko Aïcha nee na ma ne suma papa Aboubacar tontal ma yonent bi mu ne ah man de xawma lu may tontu mu ne yaay tontal ma yonent bi mu ne ah xawma lu may tontu nee na booba li ma mokkal ci alxuraan taxu koo bari waaye fàttaliku naa Yanquba la mu waxoon ay doomam nee na mën na leen waa baax fa sabarun jamil wallahu almustaanu ala ma tasifun da ngeen ma fekk ba muñ muñ gu rafet yàlla lay dimbali ko ci li ngeen di melal nee na jataay boobu yonent bi jógu fa lu dul yàlla wàcc jibril mu daal di koy jàngal la nga xam ne ñu ngi koy jàng ci suratu nuur ba ila yawmi diin yàlla setal ko gën jaa rafete setal loolu it kon mbokk julit lu la mën a dal muñal muñ gu rafet bu yàlla nattoo ca àdduna ñu tuumaal la yéen ca lañ la tuumaal defuloo ko ngal la way fa sabarun jamil muñal muñ ko rafet ci dimbali ko yàlla yàlla du neenal yoolu koy yéwénal mi ngi noonu Cheikh Ousmane barakallahu fiikum suñu borom mu ni wa jaat sayyarat noonu la ñëwee njëgg ga muy caravane ba nga xam ni ñoo jiit la woon doon ay gileem wala luñ mën a doon fa arsalu waaridahum ñi yónni seen rootkat ba fa adla dalwa mu daal di yoor la nga xam ne mooy baagam ba qaalu ya bushra qaala ya bushra mu daal di ne eey maa ngi woo mbégte haada gulaam benn asngóori ngi day ma fekk ci teen bi wa asarruuhu bidaa ñu nëbb ko def ko la nga xam ne mooy marchandise ñu fas yéene jaay wallahu alimun bima yacmaluun doonte ne yàlla gën a xam ca lañ nekkoon di ko jëfee wa charawha bi samanin baxs ay baauuhu noonu lañ ko jaaye ci njëggu doye ji mi ngi noonu darahima macdudaat muy ay dërëm yoo xam ne yu ñu lim rek la wa kaanu fihi min alzahidin te ñoom day nekkoon nañ di doy la sëkk ci yuusufa mi ngi noonu wa qaala alladi ishtaraahu min misra noonu la waxee ka nga xam ne moo ko jënd ca égypte limraatihi ñeel soxnaam sa akrimi masaax dalalal wàccuwaayam asa an yanfaana aw nattaxidahu walada kii day mën na nekk ku ñuy jëriñ ëllëg wala ñu jàpp ko sox def ko doom wa kazalika makkanna li yusufa fi l ard naka nii day lañ dalale yusufa ci kaw suuf wali nuallimahu min tawil al ahadis ngiree ñu jàngal ko ca na muy firi la nga xam ne mooy wax ya mi ngi noonu ca la ca jiitu mooy ay gént wallahu ghalibun ala amri yàlla mooy aji not ci mbiram walakin akthar annaas la ya'lamun waaye li ëpp ci nit ñi ñoom xamuñu walamma balaga ashudda bam demee ba jot digg kattanam nga aataynaahu xukman wa ilma noonu lañ ko joxe ab atte jox ko xam-xam wa kadalika najzi al muhsinin te nii day noonu day la ñuy faye ñee rafetal mi ngi noonu mbokk jóge nañ kër yankoub léegi la frère yusufa yi xalaatoon am na ndax teen boobu ñépp xam nañ ko ci ñi daan tukki soo delloo ci àll yi dañuy xam àll yi soo demoon ci dëkki naar yi xatta dañuy gis désert boo xam ne nii kenn xamul fu mu yem mais ñoom ñi ko miin am nañ ca ay genre ay pax yi ñuy tudd ay oasis nga xam ne ndox la yuy xar di génn ci xeer yi ñoom ñëpp xam nañ ko kon biñ ñëwee ci teen bi rek ñu daal di yónni seen rootkat ba mi ngi noonu gis ngeen ñu ngi doon jàng lii passé ci firawna yaqdumu qawmuhu yawma alqiyama fa awraduhum naar kon ba mu ñëwee moom mu daal di ñëw yoor la nga xam ne nii mooy lii di got bi mu yoroon mu dem dem dem ba ca suuf naka mu dem rek yusufa daal di jàpp ci got bi mu xëcc génne mu nekk benn xale bu góor rek mu daal di koy gàddu indi ñëw ci ñim àndaloon la leen ah bég am ne de for naa benn xale biñ foree benn xale it au lieu que ñu dem xool dëkk bu gën a jege ñu laaj ko fa waaye ñu daal di koy sàcc def ko marchandise te it na ma nañu yàlla baal suñu mbokku naar yi wax dëgg yàlla am na ci naar yu baax lool waaye Mauritanie ñi ngeen fa gis ñu bari ñu ñuul ñoonu sunu maam yi fii lañ leen sàccee ñeen bàyyi ba nit ñi dem tool ñu ñëw ca pénc ma buub gone yu ndaw yépp def ci ay mbuus dem seen yoon yaa ngi dëkk loolee comme ñu nëbb ko def ko marchandise daa di dem suñu borom nag moo ni jamono bi ñu koy def moom yàlla mi ngi xam li ñuy def te mbokk yàlla moom dara ump ko amma yanquba moom xamu ci dara waaye yàlla moom xam na la gaa yi def ñu dem léegi nag ci Égypte bi ñëwee ci Égypte ci Misra ah di ko jaay bokk na ci li borom xam-xam yi wax mooy sunu yonent alayhi salatu wasalaam nee na taar bu ñu ko doon xool genn wàllu taar doomu aadama yi yàlla yuusufa la ko jox dafa jiggi woon dayoo ca taar te dana ñëw léegi ci sunu bind bi ci kanam ñu ne nag gars yi biñ koy jaay ci marché bi ku ñëw rek xool ne fii kii ku ko jënd da ngay am problème kii doomu buur la kii doomu buur ju ñu sàcc la boo ko jënd tôt ou tard da ngay am problème kenn nanguwu ko jënd gaa yi jaay jaay jaay kenn nanguwu ko jënd ñu mujj ko wanteer yaa ngi dégg daanaka daal bu ñu ko doon jaayee cent mille francs dix mille francs lañ ko mujj jaayee waaw wanteer ko ndax suñu borom mu ne dërëm yi ne luñ ko jaay ndax dem nañ ba sonn ci moom kenn nanguwu ko jënd kaanu fihi min az-zahirin kan moo ko mujj jënd mooy premier ministre bu Égypte te booba dañoo amoon li Angleterre am tey nga xam ne dañu am buur bi nga xam ne rek moom mooy nekk buuru nekk symbole mais kiy doxal dëgg mooy premier ministre bi muy al Aziz Aziz boobu kon moo ko gis jënd ko bi mu ko in jëndee indi ko ci kër gi daa dina soxnaam xale bi dama ko jënd ci marché bi li ma lay ñaan mooy nga da nga rafetal ab daluwaayam ci kër gi yaatal ko ci kër gi ndax kii de yëg naa ci ne moom bu màggee danañu jëriñ moo tax dañ naan bokk na ñi gën a am rafet njort mooy azizu misra ak imraatu firawn imraatu firawna it bi mu faree muusa alayhi salaam def na firawna laa taqtuluhu asa an yanfaana aw nattaxidahu walada mën na am mu jëriñ wala ñu jàpp ko doom kon loolu ma ko wax ne yaatal ko ci kër gi loolu it yéen góor ñi ngeen bàyyi ci xel ngal la waaye xam leen ne jigéen mooy yaatal kër jigéen mooy yaatal kër moo tax bi ñu yàlla nattoo tey suñu intellectuel yi ñu bari ci ñoom dem takk jigéen ñi intellectuel ne ñoom te intellectuel yooyu tubaab bi moo leen jàngal ci tubaab xamul dëkk ak ndey xamul dëkk ak baay xamul dëkk ak maam da ngay gis intellectuel millionnaire waaye këram boo fa demee doo fa fekk bàjjen doo fa fekk tante doo fa fekk frère doo fa fekk jarbaat kër ga mbooloo moo fa gis ca du ca du du doomam waatal na mbokki soxna si la mbokki soxna si rek waaye yow moom pare nga kon jigéen mooy yaatal kër ñi ngi noonu looloo tax ba it keroog ba soxna si amee problème yuusufa yuusufa kaso ba la fanaan yi am déet yaa ngi dégg kon yaatal ko ci kër gi ñu ngi noonu mën na am mu jëriñ wala ñu jàpp ko def ko doom borom bi subhanahu wa taala ni nii lañ dalale yuusufa ci kaw suuf na am ma nga jóge ca kaw ga booba yanqu baa nga dëkk ci kaw ga indi nañ ko ci capital bi fan ci capital bi ci kër gi gën a kawe gën a neex ci capital bi lañ ko indi dalal ko foofee ca loolu it daloon na ki nga xam ne mooy zayd zayd ibnul xaarisa papaam moom it yàlla da ko nottoo woon zaydu ànd ak yaayam di tukki gaa yi attaqué seen njëg bi ñu sàcc ko yóbbu ko papa ji ku amoon ay moyen la mu am lu ko metti di wër fu ne mu wër fa demoon na sax ba découragé ba ne cey su ma amoon ku ma mën a wax rek ne ma fekke ni ñu rek ñu bàmmeelu Zayd fi ñu koy suul ma xam ne deele rek ma noppal waaye mbokk xam ngeen ne doom bu dee moo gën fukk yoon doom bu réer ngi noonu doom bu réer ñun ñi yàlla nattoo nañu suñu benn frère boo xam ne dafa réer mais ñi nga xam ne ñoom la bokkal ndey ak baay bis ñi ngi naan di ay jigéen ñoom bu leen wóoroon na dee na rek seen xol set mais problème bi moo dañu xamul ci yenn condition la nekk loolu mbokk mbir la boo xam ne am na waaye ndekete yusufa yanqu ba moom mi ngi nekk ci tiisam yusufa nga ca pale ba zayd boobu ma la doon wax it di bàyyi di wër di wër ba ñëw màkka am ñu ne ko ah muhammad day mi ngi benn jaam fekk xadija moo jënd zayd may ko suñu yonent yàlla muhammad misaal yi ngeen wax de nuróog nag lool jaamu muhammad bi se ñu ñëw ci kër yonent yàlla ji bi ñëwee ne ko ñun de dañoo dégg suñu doom yow yaa ko moom def jaam ñu bëgg nag loo koy jaay rek wax ñu ñu jënd ko yonent bi alayhi salaam boobu yàlla yónneegu ko mu ne wol leen ma Zayd Zayd ñëw mu ne ko waaw xam nga ñii mu ne ko waaw waaw kii sama papa la kii sama nijaay la mu ne ko amul problème jaayu ma ko jël leen ko ngeen ànd dem nibbi Zayd ne déedéet man nibbiwuma fi laay toog bàyyi bi na ko Zayd mu ne ko bàyyi dem leen nibbi man nibbiwuma kii du ma taqali koog moom bàyyi bi amul ci pexe mais nag quand même xolam sedd na xolam dal na ndax nee nañ ko kii muy ki gën ci màkk donte ne booba waa màkk ki ki ñu gënoon a fonk ci màkk mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi bi ne ah waaw kon sama xol dal na mi ngi nibbi ca la yonent bi alayhi salaam jàppoon ci loxo Zayd ci kanamu Quraysh kii kàngami màkk yépp ne leen kii gis na ki tey def naa ko muy sama doom fekk ba moom it amul doom bu góor def naa ko muy sama doom ñu koy wax Zayd ibnu Muhammad ba baa yonent bi di nekk màkk ba baa yonent bi di gaddaay ba baa suratul ahzab di wàcc ca la nag yàlla araamal ci jullit ñi ni jullit amul droit doomoo kenn waaw nañ nekk daal seeni feer ci ci diine waaye jël ko def ko muy doom déedéet islam araamal loolu loolu moom kenn du ko def loolu it ñu bàyyi ci xel bu baax ci li ñu tuddee fils adoptif loolu tubaab moo ko wax moo koy def ci seen diine waaye ñun diine l'islam nanguwuñu ko loolu la premier ministre bi wax ñu jàpp ko def ko suñu doom mi ngi noonu borom bi nag nee na nii laa dalale yuusufa mu nekk dëkk ca pale ba suñu borom nag commencé ko xamal naka lay firee ay gént loolu muy benn borom bi ne gis ngeen yàlla mooy not ci kattanam waaye li ëpp ci nit ñi day xamuñu wala fi dañ naan iñaan fonkul muur yàlla mooy maye ndax frère yusufa yi dañoo iñaane woon yusufa privilège bi mu am ci dëkk papaam yàlla jël ko yóbbu ko ci kër goo xam ni moo gën a neex këru papaam borom bi nag subhanahu wa taala ni bim demee ba jot kattanam digg kattanam am ñu ne 30 ans la ñu ne 40 ans la suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni ca laa ko may xukman may ko ilman ay def ko mu nekk ab yonent bu suñu borom yàlla wëhyu borom bi nag loolu mu wax xukman ak ilman tamit dina ëmb leneen lu dul yonent te xukmu mooy nit ki am xam-xam xereñe ba mën a atte mbir yépp lu taxaw mu xam la ci jub ak la ci jubul ilman nag mooy lañ cay jublu mooy xam-xamu diine bu dee permettre nga mën a jaamu sa borom borom bi nag nee na nii lay fayee képp koy rafetal ca it nga la waay yow ndawal julit soo bëggee boo magee suñu borom yàlla rafetal sa xam-xam suñu borom yàlla may la la nga xam ne mooy nit ñi jox la cër nga la waay sag ndaw da nga koy rafetal sun mag ñi dañ naan ko jox yàlla sag ndaw mu gàddul la sag mag ku xañ yàlla sag ndaw mu daal lay bàyyeeg sag mag te yàlla kum bàyyi sa mbir nga alko loolee ñu bàyyi ci xel bu baax bul wax mukk ne man jeune laa rek sama jeunesse dama koy doxal su ma màggee daal di tuub déedéet lay déterminer sag mag mag yaa ngi koy liggéey ci sag ndaw loolee ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu Cheikh Ousmane barakallahu fiikum suñu borom mu ni wa rawadatuhu noonu la ko sakkoo jëmee ci njaaloo allati huwa fi baytiha soxna sa nga xam ni ca këram la yuusufa nekk an nafsihi ca bakkanu yuusufa ay sàkk na ko ci bakkanam pour mu ñëw njaaloog moom wa ghallagat al abwaab mu daal di tëj bunti yépp wa qaalat hayta lak daa dina ko waaj na pare na ñeel la qaala maaza allah yuusufa ne ko maa ngi sàkku muslu ci yàlla innahu rabbi sa borom kër day sama borom la axsana maswaaya rafetal na sama wàccuwaay innahu laa yuflixu zaalimuun li am day mooy du texe mu ko tooñkat ya wa laqad hammat bihi soxna sa day nébatoon na lool jëm ca yuusufa wa hamma biha yuusufa mébatoon na it jëm ca soxna sa lawla an raa burhaana rabbi budul woon ak daa gis kaaw téef mooy lay bu leer ba bawoo ci boroomam kazalika li nasrifa anhu suua walfaxsha mu ne naka noonu ngiree ñu daal di fekk ci moom féewale ak moom la nga xam ne mooy lu ñaaw ak la nga xam ni mooy ñaaw téef ya suu mooy lépp lu bon rek faxsha mooy ñaaw téef la jiitu ci ñaaw téef mooy njaaloo innahu min ibadina almuxlasin moom day bokkoon na ca suñu jaam yi nga xam ni dañu leen a tànn wastabaqa albaab noonu lañ jëkkantee bunt ba wa qaddat qamiisahu min dubur soxna sa xotti xamiisa yuusufa ba xottee ko ca gannaaw wa alfa ya sayidaha lal albaab noonu lan dajeeg sangu ndaw sa ay jëkkëram ca buntu kër ca bunt ba qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suua mu ne ko ay sama borom kër lan mooy payu ki bëgg ci sa soxna si sa njaboot mooy sa soxna si lu bon illa an yusjana xanaa kay ñu daal di koy tëj kaso aw azabun alim wala ñu mbugal ko mbugal mu tar mi ngi noonu mbokkoo gis nañu danger bi nga xam ne moo nekk ci ay góor ak jigéen di wéet ngalla waay nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ñu doon wax góor ak jigéen duñu wéet mukk lu dul seytaane ñëw ñetteel leen loolu it moo tax ba soxna si yuusufa ci kanamam la màgge di développé wu ci kanamam ba baa suñu borom ne balaga ashudda toll na ni góor ñépp di toll soxna si dem na muñ na ko munu ko muñ mu mujj nag ne il faut mu sakk yuusufa raawadathu ay def na ay pexe pexe yu nekk yuusufa comprendreul wala bëggul comprendre bis nag kër gi daal di wéet moog yuusufa rek ñu def ci kër gi mu daal di dem tëj bunt yépp xanaa bu doon fii ñu ne tëj na buntu kër ga tëj buntu appartement ba tëj buntu salle ba tëj buntu chambre à coucher ba tëj na daal xalaxatal ab boobu tëj na bunt yépp léegi nag bi mu pare futteeku ci kanamu yusuf na ko yusuf a pare naa ci yow mbokk loolu ñu gis ki nga xam ne jabaru premier ministre la nga xam ne du liggéey kooku yaramam nan la war a mel koo xam ne ni musul am doom kooku yaramam nan la war a mel waaye yuusufa lan la wax maazallah maa ngi muslu ci yàlla ci loolu te loolu mbokk julit nañu xam ne muñ ñaari muñ la am na lu ñuy tuddee sabarul ittiraar ak sabarul ixtiyaar muñu lor ñàkk pexe loolu yuusufa defoon biñ koy sànnee ci teen bi ak di ko jaay ca marché ba muñ na waaye amu ci pexe yeneen ci yàlla yanquba ba ngay muñ waaye muñ gi amu ci pexe lor la gu dal ci kawam waaye muñ gi gën a kawe ci muñ yi nag mooy muñ bànneex boobu moo gën a kawe ci muñ yi loolu tax yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ni bépp góor bu jigéen do taaru woo fu kenn nekkul kaay ñu njaaloo nga ne ko man day damaa ragal yàlla ëllëg da nga bokk ci ñi ñuy keral keru arsh yawmal qiyaama ndax loolu muñ gu tar la goo xam ne nii yomb naa mu jëfe naa mucc yuusufa kon bala ñuy jàll ñu bàyyi xel ci ni danger boobu tax na ba ngalawaay yàlla nattoo nañu tey li ñu tudda bon wa ma adraka ma bon gaa yi bon ko bon yaa ngi dégg bon mooy lan tey ñu bari ci sunu ndaw ñi da ngay nekk sa appartement yàgg sa soxna kese ngeen am bon yow da ngay xëy liggéey léegi bon xëy liggéey non soxna si xëy liggéey bon ba nekk fa léeg-léeg yow nga am congé jabar moom ma ngi liggéey yàgg bon bi kese ci kër gi wallahi dem naa ci benn kaa bu demee noonu waaye heure reer bon bi ñëw kilot la sol kilot di servir waa ji reer te jëkkër ji nekk fi bi mu demee mu ne waaw xam ah te jabar ji nekk fi jabar ji nekk fi bon bi di ko servir reer ak kilot bi mu demee xam naa mbir bi dérangé na ko mu ne maa xam nga nag bon bi moom chrétien la nangam nangam fooy may chrétien ak juif ah yow gis ngeen ala kulli xaal mbokk jurit nañu xam ne loolu lu dangereux la lu dangereux la ay appartement yaag sa soxna kese ak bon kese ca toujours soxna si dem bàyyi la fa ak bon ba loolu lu danger la li ñuy wax ci bonit la ñuy wax ci booy yi liggéey ci kër gi jël sa booy mu nekk ci kër gi naan mooy defar sa chambre jabar ak mooy defar sa nangam sa nangam loolu la ñuy waxit ci gardien bi nga jël ci kër gi at yi passé nettali nañ ma benn gardien boo xam ni ñaari doomu jigéen ni patron yépp la ëmbal gardien bi mu ëmbal ñaari doomu jigéen yépp yaa ngi dégg lu tax gardien bi di nekk ci kër gi ñu def ko comme frère bu ñu bokkal néeg bay fu ko neex dugg fu ko neex dem yéen ngeen xëy liggéey mu ëmbal ñaari doom yépp bokk na ci loolu mbokk julit li ñuy tudde secrétaire ma directement secrétaire secrétaire mooy lan tey boo demoon ci sunu mbokk bawal bawal njaambur njaambur yi nga xam ne jànguñu lekkool xamuñu dara sax secrétaire yu jigéen la ñuy am am déet yow yaak moom ngeen nekk seen bureau huit heures ba quatre heures secrétaire bi buy liggéey day jàpp ni day sëyi toilette bu nekk parfum bu nekk dana ko def mbokk loolu musiba la suñu benn waay bu nekk fii ci jàkka ji nee na dañu am seen benn waay boo xam ne service bu nekk moo ko secrétaire bi ñoo bokk bureau mu xëy ne grand frère bi moom moom société bi ne ko man daal damay takk secrétaire bi grand frère bi ne ko non non non kii doo ko takk mu ne ko kon jënd ko bureau bi bureau bi moom dootuñu ko bokk te mag moom yaa ngi dégg mbokk loolu la ñuy wax ba xatta ci li ñuy tuddee ay chauffeur yéen mag ñi daan déglu musique bu yàgg ah mooy la femme de mon patron ah waaw nee na waa ji nee na benn ivoirien la nee na jëkkëru patron bi def na ko kaay ñu njaaloo mu ne ko sama sama patron déedéet ah loolu dama ko def mu ne kon de patron naa ko wax mu dàq la mu ne hee hee kenn ma leer si je dis oui yaa ngi nekk nagam si je dis non yaa ngi nekk lu koy woy da la femme dama patron waaye yàlla ku li xaal bokk nañu xam ne yooyu lu dangereux la mooy jël sa jabar utal ko mu yor chauffeur am moog chauffeur ba ña nga kees moog chauffeur ba ña nga feneen moog chauffeur ba fu ne ñu nekk fa loolu mbokk da ngay gis c'est des dangers nga war a bàyyi xel bokk na ci yit danger yi ñu xewal mbokk ponkal moo xam ne xamoo fu mu juddoo xamoo fu mu yoroo xamoo luy jukkoom ñëw nga luye ko nekk sa kër ah loolee moog say doomi jigéen léeg-léeg ñu bokk ay douche yu ñu sangoog yépp mbokk lii lépp ay danger la lii ma wax yépp nag waxuma ne jël bon araam na waxuma ne jël gardien araam na waxuma ne luy nit araam na waxuma ne jël chauffeur araam na waaye dama ne lu dangereux la fexeel ba boo koy def ña ngi koy jëflanteel nga tànn leen te it nga yar sa bopp yar sa njaboot xam na lor moo ko indi nga def ko nga nga moytu ko loolu mbokk li ngeen ci dégg ci histoire kenn xamul nu mu toll loolu mooy la nga xam ni histoire yuusuf bi danañu ko jàngal ndax suñu borom nee na yuusuf bi mu ne innahu rabbi da ëpp ci mu fassiru ni dañ koo delloo jëkkër ja ndax loolu daganoon na ci sharia yuusufa sa kilifa nga naan ko rabbo mooy li tubaab di wax rek seigneur nga naan ko rabbo amaana nag bi l'islam ñëwee yonent bi alayhi salaam dana bu kenn waxati kilifaam rabb bu kenn waxati jaamam abdi waaye de leen yéen jaam yi da leen wax sayid yéen sang yi da leen wax fataaya wala gulaam yi wala lu mën a doon waaye bu leen waxati abd ak rabb ala kulli xaal yusufa ne ko sa jëkkër day sama borom la ca teraanga defal na ma ko yaatal na ma ci këram wax dëgg yàlla xalaatuma dem di ko moy ca la nga xamee ni nii moom mooy soxnaam te it su ma ko defee lu yàgg yàgg conséquences yi day mës a ñëw ci man laa yuflihu zalimun gaa yi tooñkat boo rëccee tey doo rëcc ëllëg tooñ goo tooñ tôt ou tard da nga mës a dajeeg moom mi ngi noonu da nga mës a dajeeg moom laa yuflihu zalimun suñu borom lim ne laqad hammat bihi soxna si xeme moon na jëm ci yusufa loolee moom kenn sikkiwu ci sàkk amma nag la borom bi ne wa hamma biha loolu borom xam-xam yi da ngay gis ne am nañ ci ay wuute donte ne la gën a jub mooy dafa am lu ñu tuddee hëmmul israr mooy xemmem dara xiir ca jëm ca sax ca mu am lu ñu tuddee hëmmul xataraat loo xam ne dafa traversé sa xel rek waaye nag saxoo ci loolu doomu aadama yëpp lay dal ma ngi gis jigéen bu rafet sa xel traversé ah kii dañ ko àndoon ak moom gis lu mel ne alal lii day xam naa su ma ci mënoon am ila xëy waaye nag saxuwut kon yuusufa jeune la musul sëy mi ngi digg dooleem ndaw si piège na ko tëj na bunt yi futteeku ne ci kanamam mais loolu mbokk ku ne xam ne ni fokk mu am lu jóge ci moom moo tax nag suñu borom ne hëmma biha xel mën na jëm ci moom waaye yàlla wan ko kawteef kawteef boobu borom xam-xam wax nañ ci lu bari ala kulli xaal yàlla yéen xolam ca mooy tazakkara mu xalaatat boromam daw dellu gannaaw comme xam ne ne taxaw di wax ak ndaw si du sotti mu daw mu daw ndaw si topp ko loolee dana ma fàttali benn kuñ daan wax jóob mandirin xaritu sunu mbokk ma njaay njaay bii la woon moom faatu na suñu benn waay du ko doon dawalal ñu ko wax bamba ñaan nee na gars yi dañ na ko waaw bay jóob jigéen ñi tey li ñu def ba mucc ci mun a xanaa ñetti mbir rek mu ne daal fexeel takkal sa tubay takk sa poos samp sa xil yaa ngi def ne daal lool da nga da nga takk sa tubay takk sa poos ba pare daw samp sam xil waaye bu dul loolu doo mucc ci ñoom ala kulli xaal yusufa samp naw xilam moom ndaw si dàq ko bi muy ubbi bunt bi rek ndaw si jàpp ci xamisa bi xëcc mu xotteeku yusufa daal di dem moom it kon def na yaramu neen ndaw si def na yaramu neen yàlla dogal borom kër bi juste yem ci seen bi rek ndaw si tàcc tàcc ko na ko waaw bu mu ne nag yàlla la ci yemele waaw léegi nag lan mooy pexe koo xam ne nii ah sa soxna sa moom lay sakku di sakku ci moom lu bon ah léegi kii day xanaa lenn dong moom la yeyoo mooy fokk ñu tëj ko ca kaso ya wala ñu mbugal ko mbugal yoo xam ne mbugal yu tar la mi ngi noonu donte ne ne bokk ci la nga xam ne nekk na ci kawit suñu borom yàlla fi mu naan yusuf alayhi salaam ñoo ko fegal lu bon nasrifa anhu suu al fahsha innahu min ibadina al muxlasin suñu borom bu nammee ab jaam nammal ko yiw yàlla moo koy aar dal na yàlla aar ñu aaral ñu suñu njaboot ndax gis ngeen yeneen ci yàlla aadam keroog bi mu defee danger bi mu def ba lekk ca garab ga ba muy tub def na yàlla tooñ nañ suñ bopp waaye wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxasirin soo ñu jéggalul yërëm ñu dañ nekk ñu perte te it mbokk ndawal julit bu sincère digganteem ak boroomam xatta natt mën na ko jógee fu nekk mais yàlla koy aar ba du tàbbi ci natt yi te loolu bari na heure boo sincère diggante ak sa boroom yàlla mën na laa dénk kees yàlla mën na laa jox jigéen ñu la fekk si sa biir néeg yàlla mën na laa nattu natt bu nekk waaye toujours yàlla da la ciy génne ndax borom nga ne min ibadina al muxlasin loolu kon mbokk ñu gis ne kon jëkkër ji fekk ne lii bokk na it loogaa yi wax ñu ne moom soxna si waxul ñu rey ko daf na rek nañ ko tëj wala ñu bëggal ko ndax yuusu moom kenn du ko rey yaa yaa ngi dégg ala kulli xaal kon benn pexe bu mag mi ngi doon ci pexe yi jigéen mi ngi noonu Cheikh Ousmane قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن Thank you. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
jazakallahu xayra suñu borom mu ne yusufa qaala hiya raawadatni an nafsi yusufa ne borom kër gi déet moom mii moomu doon sàkku ci sama bakkan wa shahida shahidu min ahliha noonu la seede aji seede ju bokk ca njabootu ndaw sa in in kaana xamiisuhu qudda min qubul bu dee ne day xamis bi yusufa soloon dafa xot dañ koo xottee ci kanam fa saddaqat kon day ñu xam ni ndaw si fa saddaqat ndaw si wax ne dëgg wa huwa min alkaadibin ca kon yusufa mii ci fenkat yi la bokk wa in kaana xamisuhu qudda min dubur bu dee ne nag xamis bi dañ koo xottee ca gannaaw fa kazabat kon ndaw si day fen wa huwa min alsaadiqin ca kon moom mii ci ñi dëggu la bokk falamma raa xamiisahu qudda min dubur ba borom kër ga xoolee gis xamiisa ba ma nga xottee ko ca gannaaw qaala innahu min kaydikun mu ne lii dee ci seeni pexe la bokk yéen jigéen inna kaydakun azim seeni pexe day lu màgg la yusuf aarid an haada yusufa dummooyul ci lii bàyyi lii yow soxna si wastaxfiri li zanbik jéggulul sa bakkaar innaki kunti min alxaatiin ndax yow bokkoon nga ci ñi nga xam ni dañoo doon ñu juum ay dugg ci bakkaar wa qaala niswatun fi lmadina noonu la waxe ay jigéen ñu dëkk ca dëkk ba imraatu alaziz turaawidu fataha an nafsi ah soxna premier ministre ba day ma ngay sakku la nga xam ne mooy jaamam ba mu am an nafsi yi muy sakku jaam ba ngiree mën a ànd ak moom ci njaaloo qad shaghafaha hubba dem na ba muur na ko cib cofeel may muur na xolam ba cib cofeel inna la naraha fi dalalin mubin ñun day gis nañ ne soxna si mi ngi ci réer goo xam ne réer gu bire bir la mi ngi noonu mbokk kon bi ñu taxawee soxna si def déclaration boobu mu def islam it du nangu rek nga naan la yàlla xam doy na jullit bu ñu ko tuumaalee day fexe teggi tuuma ci boppam ngi noonu teggi tuuma ci boppam looloo tax mu ne borom kër gi déedéet déedéet moom mii moo ma doon sàkku ci sama bopp moom mii moo ma doon sàkku bi coow li ne kur yow la ak nangam suñu borom ni noonu la seedi aji seedi ba bokk ci njabootam borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari donte ne ni am na ñoo xam ne lañ cee wax dañ ne benn gone gu ndaw goo xam ne nii tolloogul ci wax sax moo ne xool leen xamis bi rek bu xottee ko ci gannaaw ngeen xam ne nangam bu xotti ka kanam ngeen xam ne nangam loolu mi ngi noonu ala kulli xaal loolu wér na wérul li wér moom mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam netti lañu histoire jurayj jurayj ci ahlul kitaab bi la bokkoon yàlla xiirtal ko mu beru woon dem doon jaamu ji yàlla ci àll bi yaayam ñëw di ka di ko woo lu jege ñetti yoon heure bu ñëwee rek teg ko ci naafila mu ne waa man dama wuyu sama yaay wala damay continuer ba yaay ji découragé dem bi mu demee nag mu ne ko waaw yàlla na la yàlla nattu ci jigéen ñu bon ñi comme man may sa yaay di wax ak yow faale woo ma naka yaay ja ñaane woon am benn jigéen ca ko ca dëkk ba dem daal di ëmb bi mu ëmbee mu nekk musiba ci moom ñu ne ko ku la ëmbal mun a juree ju moom mu ëmbal ngir nit ñi moom dañuy fàtte problème am ndax juree ji bi nga xam ne mooy sëriñu dëkk bi yépp ne bu ko ëmbal moom da ngay wax kii rek gaa yi gaa yi riir ci dëkk ba ñëw rek lii tubaab yi di wax rek sans enquête on n'a pas droit à la parole gaa yi ñëw laajuñu xooluñu ñëw rek mabb néeg bi mu nekkoon juré ji na lu xew lu xew ñu ne ko kaay da nga xam lu xew indi bu mu yeewu bu mu dëgër yow ndekete sa néeg bi nga def fii ci àll bi amoo loo fi def lu dul di wootal suñu jigéen ñi mu ne leen déet fekk yàlla dogal na soxna si tamit ëmb bi nit ñi xamuñu ko woon ci rek bu mu amee doom la nit ñi xam ne am na doom ñu wax ko mu ne juree ji la ñu ne ko yaa ëmbal soxna diw ba nga ne ak doomam mu ne ha ñu ne ko ha yow dañ lay rey mu ne waa d'accord d'accord naa ngeen rey ma waaye lenn rek laa leen di ñaan ngeen indil ma doon bi gars yi da ko loolu moom mën nañ la ko may damay indi soxna si soxna si indi doomam bi mu indee doom bi juree ji jóg daal di julli ñaan yàlla daal di jël loxoom teg ci loxo liir bi na ko waaw liir kuy sa baay mu ne waa dëkk bi hey sàmm ba nekk fii moo ma jur yaa ngi dégg bokk lii yonent yàlla bi moo ko nekk li bi loolu amee nag dëkk bi commencé ko di fóon juree ji di ko raay na ko léegi dañuy bàyyi néeg bi néegu or lañ koy def mu ne déet defalaatu ma suma néegu ban rek ca bàyyi ma man waaw ala kulli xaal mbokk lii daf ñuy won danger bi nekk ci atte mbokk atte lu jafe la bari na ay nit ñu tëdd ci kaso bi wallahi defuñu dara mais circonstance moo leen fa dugal almuhim yuusufa amul loon lu ko mën a musal waaye yàlla daal di indi mbir mooy xamisa bi bi jëkkër ji yëkkatee xamisa bi gis bi ñu xotteekoo ci gannaaw mu daal di am yaqin kon ne bi Yuusuf fay daw la ko ndaw si di bëgg a jàpp xotti xamisa bi gaa yi xamisa bi yaa ngi koy dégg tey déggoon nañ ko démb xamisa bi moom lañu moom déggoon nañ ko ci liñ liñ jàng suñ bind bi passé xamisa bi le frère Yuusuf ba indi woon jox Yankuba ne ko Yuusuf ba mi ngi nii till ga rey na ko pour def ko preuve pour ne till ga lekk na ko waaye xamisa yusuf it moo mujj sëfi yusufa ba won ne nekkate moom dugul ci njaaloo buñ demee balaa saar bay jeex yàlla dañu indiwaat xamisa bi xamisa boobi moom bañ joxoon yaquba tiisam commencé foofu tiis ba lenn ci mu fassiru nii nee nañ jege na 40 ans 40 ans nee nañ jege na ko xamisa boobu it lañ koy xëppaat ci kanamam mu daal di gis loolee nekk aussi preuve buy wone ni yuusufa mooy ka koy woolu almuhim kon jëkkër bi bu mu xoolee gis xamisa bi mu daal di wëlbati ko ci ndaw si ne ko lii ci seen pexe la yéen jigéen seen pexe lu rëy la gars yi yàlla nañu yàlla musal ci pexe jigéen gis nga jigéen bu ko yàlla baaxalee baax na yàlla na yàlla baaxal suñuy jigéen ñun ñépp jigéen nañu jur waaye jigéen bu namm pexe ah da ngay gis ne néew na góor gu mën a mucc ci moom looloo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne seytaane nee na samay fit fit day bari na lool waaye benn laa xam ne du ma ci may mooy fittu jigéen bokk jigéen ju taaru jëm ci góor loolee néew na nga échec waaye jigéen it yàgg na teqale nit ak i way juram jigéen yàgg na teqale nit ak i frè- ay ay ay ay frère am jigéen yàgg na dugal ci doomu aadama ay musiba mi ngi noonu sunu mbokk bi Cheikh Ndiaye yàlla na ko yàlla dolli wér nee na am na benn douanier bu bu buy wax ak commerçant yi naan ni ni niñ koy waxee ci la yéen waaw lii ngeen ñuy jox mais garaawul ndax ñun buñ demee jigéen ñi lañ koy jox jigéen ñi indilaat indiwaat ko ci yéen yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokku jigéen yàgg naa sàccloo nit yàgg naa dugal nit ci lu nekk mi ngi noonu inna xayrakum azim seeni pexe lu rëy la donte ne yàlla mi ñu wax loolu nee na inna kayda cheytan kaanu daifa nee na cheytaan ay pexem lu lu lu lompañ la waaye mu ne jigéen moom ay pexem lu rëy la daajana yusufa yow day ku baax nga histoire bi yemelu ko fii yusufa lii bu ko nettali kenn yemelu ko fii arid an haza daajana soxna si yow na nga fexe ba yow it tuub say bakkaar ndax yow it bokkoon nga ci ñi nga xam ne nii juum nga juum gu rëy mi ngi noonu ca mooy sàkku bi ngay sàkku yuusufa waaye mbokk julit xam ngeen ne histoire loo ko nëbb nëbb nëbb buy génn doo xam fan la jaar ba génn ah mi ngi noonu jamono yi président bi fi jóge dañ daan def conseil des ministres nga xam ne secret la luñ ko wax balaa ñaari fan journaux yëpp relaté ko ci ñoom ñu ngi nekk seen biir ba sax ñu naan dañuy dàq kii dañuy dàq kii dañuy dàq kii waaye mbokk li ñu tudd rumeur rumeur moom dafa yàgg a am doonte ne nag dañuy yokk lu ci bari ay mbir wala ñu wëlbati ko ala kulli xaal rajo kankan ya départ na ku dégg jox sa moroom comme la xewoon ci yaay Aïcha suñu borom mu ne istalaqawnahu bi alsinatikum ku jot rek jot li ku jot jot li ah dégg ngeen li xew a dégg ngeen li xew a dégg nañ ne kat jabaru premier ministre ba day sàkk booyam ba nekk ci kër ga dégg naa da ko bëgg bëgg bëgg ba mu muur xolam ànd nag àndutul ak sagoom ca baat ba mu yow jàppe ko xat shaghafaha hubba ay yéen ndaw ñi bàyyi leen bëggante nga jël jigéen bëgg ko ca pare woo pour takk bëgg naa la bëgg naa la ngeen ànd di jàng yow xale bu jigéen bi xale bu góor bi day dem ba gënal la sa ndey gënal la sa baay bis bu ñëwee di la bëgg si sa baay ne ah kii doyu ma pour ma may ko jabar dalay jaral nga dogoog sa baay mais kii moom dara jarul nga teqale ko moom am déet xale yu góor yi même su chose gis benn xale bu jigéen yow prévôt pour takk yaa ngi ñëw rek am ak moom relation seeti téléphone seeti téléphone ba mujj mu gënal la say bët nga xëy xëy ne dama koy takk sa yaay na la déet kii du ko ñuy takk sa baay na la déet kii du ko ñuy takk dana la jaral dogoog sa ndey ak sa baay waaye kii moom danga naan mënu ma ko bañ a takk lu ko waral mooy muur na sa xol borom xam-xam yi arab yi français yi tubaab yi ñépp a ci daje mbokk mbëggiir bu yàggee day muur xol ñii mu def loolee yaa ngi dégg am ñoo xam ne bëggeel da leen di dofloo shirafaha hubba loolee kon ku nekk ci ñun di ah war a bàyyi xel kémtalaatal kàttan ci loolu donte ne it mbokk la nga xam ni suñu borom wax na ko waa dëkk ba ñu ngi koy waxtaanee nañ xamee ne mbokk doomu aadama suñu borom mu ne inna nafsa la amaaratun bisu xam nga bakkan doomu aadama lu ko gën a neex mooy ay caay-caay ay mbir yu jéggi dayoo da ngay xool tey suñu journaux yi di dem ci tasaaroo ci dëkk bi ndax gars yi gis ngeen benn journal bu dul journal officiel la soleil nga xam ni moom gouvernement bi ko moom amuñu intérêt ci yooyu amul benn journal ci cinquante huit journal yi ñuy taw suñu dëkk bi par jour loo dul page une boo xoolee dañ ci gis viol am déet baay bi tëdd na ak doomam maam tëdd na ak jarbaatam kee nangam nangam loolu mbokk da ngay gis dafa neex nit ñi dafa neex nit ñi ndax loolu mooy borom xel yu suufe yi loolu da leen di neex waaye mbokk loolu day lëndëmal xol ñu bàyyi ci xel bu baax day lëndëmal xol bokk na société bu bon la leen di alimenté mooy lan tey mbokk da ngay gis ak a neexoon société bi mu leen di alimenté qaala allah qaala rasulullah waaye da ngay xool suñu télévision yi lan moo ci xew ndax xam ngeen leen may un café évêque ndax xam ngeen la nga xamee ne nii mooy film bu bon bi ñu tasaare suñu suñ suñu réew ñu tudde ko euh, nuñ ko tuddee d'un homme marié am na ah maîtresse d'un homme marié maîtresse d'un homme marié mbokk ku am jabar ba pare wër bëtt ko di doxaan lan la l'islam wax ci moom di l'islam dafa wax nañ ko rey day ñu tourne ci des épisodes yoo xam ne jeexagul sëriñ bu doy waar boobu ma leen doon wax ba muy baka gaa yi jigéen wooy ca plateau ba di ko laaj ci wàllu seen bi bi mu ne waa mais c'est des choses naturelles ndax marié ba pare am far mais xanaa gisoo jamono premier ministre bi mi ngi marié ba pare di woo yuusufa ci kawam xoolal ma loolu mbokk dalilu alquran ala kulli xaal mbokk laabalal sa xol laabalal sa bët ci histoire yooyu histoire yooyu baaxul lépp lu jëm ci àll wàllu viol wàllu sexe wàllu nangam fexeel ba bu ko nekk di liir bu koy déglu bu ko seetaan heure boo ko defee jeexital na di ay pong ay point point point sa xol yàgg gis lu bon day mujje banaal ci yow day mujje banaal ci yow ba dootoo ko ñaawloo ci mi ngi noonu ngir jeexal nee nañ góor ga dafa am doom bu jigéen bu rafet na ko doom daal yow mi duma la may kenn dama lay takk mu ne ko hee bàyyi kon tund bi dañ ñuy gàddu mu ne ko buñ ñu gàddu dañu mujj wàccee rek bàyyi ma takk la rek nee na daa di dem ca àll ba daa di fexe fexe fexe fexe ba jàpp benn bukki daa di indi bukki bi yow ci buntu këram dëkk bi yëpp dag hee bukkee bukkee mu yar bukkeem rek léeg-léeg gaa yi ñoo romb xoola leen bukki baa ngi fee nee na mujj dem ñëpp dem kenn faalul bukki bi mu ne ko gis nga su ma la takkee yëpp nii lay demee rek ala kulli xaal moo ko gis nga lu bon boo ko yàggee déglu di ko yàgg a seet di ko yàgg a déglu di ko yàgg a seet day mujj dem dootul jeexital ci yow Ablaye lay mën a yàlla na ko yàlla dolli yiw dañoo am benn dëkkandoo benn gan gu jóge ca kaw ba mu ñëw Dakaaru wàcc si simis yi di jooy ah ba mu di sam looy jooy non dama da jig jigéen biy tux yaa ngi dégg gis ngeen ndax moom loolu bees na ci moom yal na yàlla defal ñu afiya yal na yàlla defal ñu jàmm fi dunya wal axira laabal ñu laabal suñu njaboot wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw bu dee ne ay ndonga daara yi yelwaan loolu moom yow sarax leen rek nga jublu ca ay ndaw lañu ñoo xam ni dañ leen a noot ca itamit ñu bari ci ñoom dañ leen di sas bu ñu indiwul dañ leen di dóor donte ne bu doon dëkk bi yépp mënoon nañoo mànkoo kenn bañ leen a sarax ngir loolu jóge fi loolu mooy la nga xam ne mooy la gënoon waaye comme yéggaguñ foofu ay miskin lañu ngay considéré leen ay yataama sarax leen amaa ponkol nag moo xam ne ma nga solo na ko neex di jaagar jaagari ne day yalwaan ngir ay café bokk ñu mel noonu kenn du leen sarax ñu mel noonu sarax leen encouragé leen mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal waaw bismillah naam waaw boo boo nàcc génn deret waaw waaw déedéet deret buy génn ay nàcc nàcc yàqul koor borom xam-xam yi fañ am ixtilaaf mooy li ñuy tuddee xijaama xijaama mooy gàjju te gàjju googu nga xam ne dañuy gàjju de manque sa deret la cay génn ci deret dafa bëri donte ne ne bokk na la gën a dëgër mooy gàjju boobu it nekkul di yàqu koor donte ne am na ñu ko ca boole wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ay piqûre piqûre du yàqu koor lii yàqu koor mooy perfusion bu lay dolli kattanug lekk mais bu dee piqûre kese piqûre moom du yàqu koor non non bismillah non ah bu dee dafa soj am lu muy pompe ci bakkan bi bu dee lu ñuy fóon kese la loolee borom xam-xam yi nee nañ du yàqu koor bu dee nag liquide la buy dem liquide boobee jaar ci bakkan bi day yàqu koor da ngay gis li nga xam ne it mooy pompe yi asthmatique yi di jël am na ay borom xam-xam yu bari bokk na ci sax ku mel ne Cheikh Ousaymin ñoom dañ ne loolu ci poumon yi lay yem loolu yàqul koor donte ne ni li ñuy wax mooy nit ki daal ba mu koy jëfandikoo lu dul extrême nécessité wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam mbokk bi dafa jàpp ba pare pompo serviette wala sang ba pare pompo serviette loolu day dara néew ci donte ne la gënoon mooy nga pomp ko say loxo sunu yonente alayhi salatu wasalaam sunu yaay maymuna nee na sangu na ba pare ma indil ko benn serviette mu delloo ma ko di wàccee ndox mi ci ay loxoom loolu it lañ ci bëgg mooy jeexitalu jaamu yàlla bi des waaye boo pompo serviette it loolu dara néew ci naam bismillah naam waa ji am ay gaañu gaañu dañuy xool su dee ni moom foofee gaañu gaañu ba nekk bu dee ne raxas ko du du ko sonal da koy raxas su dee ne mënu koo raxas mu masaa ko su dee na it da ngay gis ne masaa bi da koy gaañ mu mu takk ko su ko takkee raxas na si yaramam bu yegsee foofu daal di koy masaa loolee da ngay gis ne dana doon lu ko doy mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah waaw waaw xam naa après ñu mujj ci mbokk bi rek ndax xam-xamu firi gént mi ngi am ba léegi na am xam-xamu firi gént yàlla dana may doomu aadama bi mu am nu muy firee gént yàlla dana ko may ku ko neex ci ay jaamam doonte ne firi gént du yaqiin du lu ñuy dogu zann la mooy njort la mais du looy dogg ne lii la war a doon mi ngi noonu yeneen ci bari salaatu wasalaam da ngay gis na ci jamonoom day liñ daan indi gént mu abubakar loo ci xalaat abubakar wax juum yonent bi daal di koy firi yonent yàlla dong moo am privilège lu ko waay wax ci gént mu daal di koy wax mu dëppoonam amee amaa nag bu dee keneen ku dul moom yàlla dana li may ay nit ci ay takk yoo xam ne yàgg nañ koo takk loo xamee ne nii buñ ko xoolee rek day am luñ koy méngaleel loolu nag zann la ngi mel ne yonent ci yàlla yanquba bi ko yusufa ni gis naa jant bi weer bi ak fukki biddéew ak benn mu daal di xam ni bokk na li yàlla wax ci wa shamsu wal qamar da koo lënkale kon mu xam ni kii mooy waajur yi fukki biddéew yi ak benn it xam nañ ne moom fukki doom ak benn la yor à part ya yusufa ci loolu la gisee ne maadaama lim bi méngoo na ca dañoo wàcc ci suuf mooy muy wane ni lu mu yàgg-yàgg famille yanquba daañ mas a màggal yusufa alayhi salaam loolu kon ca la tënk-tënk boobee almuhim daal firi gént yàlla dana ko may ku ko neex ci ay jaamam waaye nag nañu xam ne njoortu la du yaqin wallahu subhanahu wa taala alam ñu mujj ci mbokk bi rek waaw waaleykum salaam wa rahmatullah
mën na yéene woor dara loo xam ne yëpp dafa nar a métti mu dog wala loolu waxate woor rek bu métti
waa ji nar a tukki tukki bu sori ndax mën na yéene woor su méttee mu dog ala kulli xaal kii tukki moom bu ko neexee woor kii tukki ki tukkiwul yépp su méttee mën na dog waaye nag lan mooy métti métti bi loolu la ñuy wax su dee métti ba yëg ne ne ne man kat su ma continuer nii ca lekkuma naanuma loolu dana nekk lor goo xam ne dana ma ko lor su boobaa bu tukkee bu tukkiwul yépp islam may na ko ma dog kooram donte ne ne ñi nga xam ne dañuy tukki tukki yenn yi tukki yu sori rawatina yow mi jóg di jàkkaarloog jant bi nga xam ne mën nga dem ay vingt heures de temps sax nga woor ko su dee ne yomb na ci yow xayrul waaye it na nga xam ne kii tukki moom yàlla may na ko bu ko neexee bu mu woor mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain